mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya quarante deux ci suratul maida suñu borom di waxe sammauna lil kazib alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad waala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi gis ngeen suñu boroom bokk na lum ñu wërsëgalaat mooy ñu ngi dajawaat tey ci am néegam ci biir shahru ramadan waaye ci biir bis bu mag mi wisaal juma rawatina nag la nga xam ne mooy tàkkusaanug ajjuma bokk ci waxtu yi gën a yaa ëpp yaakaar ci bis boobee loole ay ngëneel la yu dugg ci biir ngëneel mboolem la ca nekk ci ngëneel yal na yàlla jagleel ñu ko ca boole ñoo loolu mboolem ku koy déglu ak fu mu mën a nekk ca fayul fayal ñu yiw ña nga xam ne ñooy dox suñu diggante ak ñoom comme ni ngeen ko xamee kon tey mooy fukkeelu fan ak juróom benn ci chahru ramadan 1444 di dëppoog le 7 avril ci 2023 kon kon incha allah incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na mu jël ñu suñu bind bu njëkk
فكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom jalla wa ala mu ne ñoo ñii di yahud yooyee day sammaa'uuna lil kazib ña ngay nekk di aji déglu ñeel ay fen akkaaluuna li suxt ña ngay sax di lekk ñeel ay nger suxtu mooy lépp loo xam ne rek alal ju xaraam la ngerak riba kartak lu mu mën a doon fa in jaa'uuka su dee dañ laa dikkal day fahkum baynahum na nga atte seen diggante aw a'rid anhum wala nga dummóoyu ñeel leen wa in tu'rid anhum su dee da ngaa dummóoyu ci ñoom falan yadurruuka shay'a duñ la mën a lor ci dara wa in xakamta soo demee bay atte fahkum baynahum bil qist na nga atte seen diggante ci maandute inna allaha yuhibbul muqsitin yàlla day dafay bëgg ñi nga xam ne dañuy maandu wa kayfa yuhakimuunak mu nem nuñ lay attewoo wa indahum tawratu fiha hukmullah te ña nga ak tawraat atte bi yàlla ma nga ca suma yatawallawna min baadi zalik gannaaw ba ñu dumm yu gannaaw li lépp wa ma ulaika bil muminin ñoom day waaye nekkuñu ñoo xam ne ñuy gëm la ñu doon mbokk gis nañu démb lañ mujje woon ci yahud yu bon yooyu nga xam ne dañ daan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko déglu suñu paree dem ca seeni mbokk ne ñoom moom day nangam ak i nangam lay wax ca la muy wax dara amu ci loolu it mu lay jàngal mbokk war nga def attention bul fekk bépp xabaar boo dégg rek nga gëm ko te loolu bu ca sunu maam yi doon moytu benn ñun téeméer lañ ca war a moytu internet bi mbokk lu nekk moo ci am lu ne tey jii yegg nañ ci xarale mën nañu loo wane Cheikh Ousmane ngi nii toog ngeen gis ko muy nekk di jàng fekk dañoo jël lu mel ne Xusayfi wala Sudaysi teg ko muy jàng kom baatam naka noonu nit ab discours mën nañ fekk kilifa gu mag ñu waxloo ko lu leen neex loolu lépp internet di mën na ko tey xale yu ndaw ñoo koy def loolu moo tax ba nit ñi war di fagaru bu baax heure muñ yégee ay xabaar waaye rawatina nag sa wàllu diine boo ko diine ji du looy dégg rek gëm ko fokk war ngay def attention yonent bi alayhi salaam mi ñu ko waxal kenn xamu nu mu toll ci ay fen loolu mi ngi noonu yahud yooyu nag ñoo ci man ñoo ci jiitu ñoom ñi nga xam ne adduna yàqu gum yàqu rek ñoo nekk ca gannaaw mi ngi noonu suñu borom nee na ñoom ñooy lekkatu lu bon yi a soxto mi ngi noonu loolu rek moo di itteel te loolu même boo demoon ci en Occident tubaab yi nga xam ne xamuñu sax luy islam loolu lañ daan caricaturer yahud dañu leen daan jël defal leen ay ay griffe mooy ay wee yu def nii ñu ne yahud li man mooy dajale alal dajale rek mi ngi noonu su ko defee loolu borom bi wax dañ koy lekk bokk lekk lu bon firiwul dem jënd ci ay ganaar lekk waaye ki jël alalu jirim tabax ci kër ki jël alalu mis alalu miskin dem jënd ci oto loolu lépp ak lekk lay tudd gis ngeen borom boobu nag ne suñ la dikkalee atteel seen diggante wala nga dummóoyu ci ñoom soo dummóoyu ci ñoom duñ la lor ci dara donte ne loolu njëlbeenu lislaam la woon mais biñ demee ba lislaam am doole ba yonent bi nekk chef boo xam ne kenn contesté tu ko ci Madina da ngay xool ca aaya ñeent fukk ba ak juróom-ñeent suñu boroom mu ne ko su booba wa nahkum baynahum bima anzala allah wala tattabi ahwaahum suñ ñëwee moom atte leen ci li téere bi yàlla bi wàcce borom bi ne soo leen dumoyo duñu la lor ci dara amma boo demee bay atte atteel ci maandu te yàlla daa bëgg ñu maandu mbokk maandu mi ngi noonu suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam commencé ca atte ba gis nañu ne liñ leen nettali fi ay yoon benn jigéen ca aristocrate yi nekkoon ca makka gàdd gàddaayoon ñëw madina ba mu sàccee gaa yi ne ah lii day gàcce lay doon kii ñu dagg loxoom ci dëkk bi gàcce lay doon yonent bi alayhi salaam daa yéeg ca ko min barba mu ne lii day moo alagoon ñi jiitu woon heure bu kilifa defee ci ñoom dara ñu nëpp nëppal ko heure boo xam ne baadoo la moo def ci ñoom ñu teg ci moom atteb yàlla bi waaye maa ngi leen di seedeel ni bu doon Fatima moo sàcc man danaa dagg loxoom loolu nag mbokk noonu mu amee ci atte ba li amee ci lépp sunu yonente alayhi salaam bi mu wax naan inna allaha yuhibbul muqsitin daf ne mooy ña nga xam ne dañuy maandu ci seen njaboot maandu ci lépp loo xam ne nii dañ koo féetewoo ca mbokk maandu te mi ngi commencé ci père de famille bi ba ca président de la république ku nekk ak responsabilité ba nga ca am képp ku jiite ñaari nit wala ñaari milingu nit yéen a yem suñu borom dafa bëgg nga maandu ca la nga xam ne mooy seen diggante même bu doon tane ne la nga xam ne ay yéeféer lañu nga maandu seen diggante lan mooy maandu mooy ku ne nga jox ko àqam nettali naa leen lu fi yàggul dara abdullah ibnu rawaha keroog ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónnee ca xaybar ngiree lépp lu fay ñori ci tàndarama mu recensé ko ndax dafa defoon ak yahud yi benn pacte mooy bàyyi ni ñu gérer tool yi lu fi ñore ñu séddoo ko ci dégg bi bi abdullah ñëwee yahud yi teeru ko teral ko comme gars yi ni ñuy corrompre rek les inspecteurs yi nga xam ne ñooy nekk douane ak impôt yu kan xamul yooyu lu la ñu defee ko ci teraanga mu ne waaw lii lu mu doon ñu ne ko ah dañoo bëgg rek comme yow yaay atte nga nga nga nga maandu rek ci heure booy def partage bi mu ne leen téy leen seen alal wallahi maa ngi leen di seedeel ne maa ngi jóge ci ki ma gën a bëgg ci lu yàlla bind mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam maa ngi ñëw ci ñi ma gën a bañ ci yàlla bind mooy yéen ñii demoon ci ay mbaam xoox golo ba ma gënal ñëw ci yéen bu ñu ma fa yónniwul woon waaye maa ngi leen di seedeel ne bëgg gi ma ko bëgg ak bañ gi ma ko ak bañ gi ma leen bañ du tax mukk ma bañ a maandu seen diggante ñu ne ko waaw lii de moo tax asamaan ak suuf taxaw gis ngeen ala kulli xaal mbokk mi ngi noonu maandul sa njaboot maandul say soxna maandul ci lépp loo jiite maandu te may ku ne jox ko ak xam ba mu yeyoo borom boobu nag ni ñoom lu ñu lay attewoo ca tawraat ma ngi fi ñu xam ne lii la ci yàlla atte teewul ñu won ko gannaaw xamal ne ñoom day nekk ñu du gëm ca mbokkit loolu suñu borom yàlla dana ko waxaat ci kanam nee na ñi attewul ab téeréem gëmuñu ñi attewul ab téeréem yéeféer lañu loolee nekk benn danger boo xam ne ni danger bu rëy rëy la ca mbokk ñàkk attewul yàlla wàcce da ngay gis ne ñetti mbir rek moo ca mën a nekk benn mooy waa ji xamul ni kat atte yi yàlla indi na ca atte yi ñu war a appliqué ca bari na sax xataa suñu dëkk julit ni bari na ci ay juge ak magistrat yoo xam ne mosu ñoo xam ne alxuraan ji yàlla da ko wàcce pour mu atte nit ñi jàpp nañu alxuraan ca jàkka ja rek la war a yem ku ci sa bàyyi dee nga woote ñetti sëriñ daaru ñu wàccee la kaamil ku ci sanc sa kër dem ñu wàccee la kaamil mais xamuñu ne am na ay loi yu yàlla tëral ne jullit ñi nii ngeen di julee di ko woor atte leen seen seeni loi ñu mel noonu dañ leen war a jàngal xamal leen mu des yeneen ñaar kii moom daa xam ne yàlla wàcc na ay aaya alquran waaye nag lim jàpp mooy ah non aaya yooyu du lu ñuy attee ay ay ay ay vingt-unième siècle wala atte yii ñu tëral suñu bopp moo ko gën a maandu mbokk ko mel noonu dañ naan yéeféer la na doon atte na wala attewul mas naa nekk juge wala mas naa nekk avocat c'est la même chose même baykat bay bay ca àll ba képp ko dem ba gëm ne atte yàlla yi maanduwul attey doomu aadama yi moo jub wala attey doomu aadama mel na ne moom ku mel ni moom yéeféer la mu des nag ñetteel bi ñetteel bi mooy ki nga xam ne moom xam ne ne atte yàlla yii day mooy la ñu war a def atte yàlla yi day mooy la maandu waaye moom mu tapp bànneexu ba kanam atte wala ko neex ku mel nii dañ naan def na benn kabair bakkaar yi gën a màgg ci bakkaar yi loolu kon ñu bàyyi ko xel bu baax ca moom la suñu borom di nar a baamu léegi incha allah Cheikh Ousmane.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون barakallahu fiikum suñu borom mu ni إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ñun day waay ñoo wàcce tawraat nekk na ca njub ak leer yaxkumu biha annabiyuuna allazina aslamu noon la cay attee yonent ya nga xam ne dañoo jébbalu lillazina haadu ñeel ña nga xam ne dañ na ay yahud lañu wa rabbaniyuuna wal ahbar ak ña nga xam ne ñooy sëriñ sa rabbaniyuun mooy ñay jàngal nit ñi di leen yar commencé ca ndaw ña sëriñ daara yi ñoo ci jiitu wal ahbar mooy borom xam-xam yi mag ya nag nga xam ne ci la ñuy dellu ci fatawa yaag yu dema noonu bima suhfizu min kitabillah ñoom day nekk nañ ca lañ leen wattuloo ci téereb yàlla bi wa kaanu alayhi shuhada ca ñoom ñoo nekkoon di aji seede ci loolu bokk na lu leen yàlla waxoon fala taxshaw naasa waxshawun ewaay bu leen ragal nit ñi na ngeen ma ragal man wala tashtaru bi ayaati samanan qalila bu leen jënde samay aaya yi njëggu néew wa man lam yaxkum bima anzala allah koo xam ne day attewewul ci li yàlla wàcce fa ulaika humul kafirun ñoom day ñooy yéefér ya wa katabna alayhim fiha bokk na lu ñu bindoon ca ñoom ay farataaloon ñu def ko ca ñoom anna nafsa bi nafs bakkan bu rey bakkan nañ ko rey wal ayna bil ayn ku fuq bëtu jaambur nañu fuq sa bët wal anfa bil anf ku dagg bakkanu jaambur nañ dagg bakkanam wal uzna bil uzn ku dagg nopp jaambur daggaleen noppam wa sinna bi sinn ku damm bañu jaambur dammaleen bañam wal juruha xisaas jam-jam yee nañ ko doon lu ñuy nattali ay fayonte lu tol noonu fa man tasaddaqa bihi koo xam ne nag àq ba mu yor ba mu amoon da koo sarxee fa huwa kafaaratun la loolu day dana nekk lu koy faral ay bakkaaram digganteem ak yàlla wa man lam yaxkum bi ma anzala allah koo xam ne nii day attiwawul la yàlla wàcce fa ulaika humu zalimun ñoom day ñooy tooñkat ya mi ngi noonu bokk kon suñu borom mu ne moo wàcce tawraat tawraat boobu nee na am na ca njub ak leer mi ngi noonu doonte ne alxuraan moom fu ko yàlla di waxe rek day wax moom ci boppam jub la shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas suñu borom it nee na moo ko wàcce mu nekk nuuran mubina te mooy mi ngi noonu ndax alquran léppam ci yàlla la jóge amma tawrat ak injil yàlla ko wàcce woon tawrat yàlla ko bind ci loo xam jox ko Muusa waaye yahud yi am na luñ ci génne am luñ ci dugal ci seeni bànneex suñu borom mu ne nag bi muy wàcce tawraat mu nekk njub ak leer ca la yonent yi jébbalul yàlla doon attewoo te mbokk ñi jëkk a jébbalul yàlla mooy yonent yàlla yi ca seen baay ibrahim bokk na lu mu waxoon is qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin bi ko yàlla ne jébbalul mu ne jébbalul naa borom bindaa fan yi te mbokk jébbalul yàlla mooy lan mooy nangu atti yàlla yi la la ci neex ak la la ci naqari suñu borom yàlla jalla wa ala mu ne fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima duñ la gëm mukk seen ngëm du mat mukk lu dul lépp lu ñu juyoo seen diggante dañ ñëw nga atte ko gannaaw ba ñu bañ a am benn ñag-ñagu xol ci li nga àtte ñu jébbalu ak jébbalu looloo tax ba wax nañ leen fi du yàggul dara benn waay bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama bakkan bi man na ma ba njaaloo na ku njaaloo dañ ko war a rey ay yow yàlla laabal ma gis ngeen loolee koo ko joxe bakkanam ngir yàlla naka noonu itamit doomu aadama yi noonu la ñu war a jébbalu la yàlla ci mboolem atte yi suñu borom yàlla nag ne ñii nga xam ni mooy tawraat yàlla daa santoon borom xam-xam yi tawraat ya ñu wattu ko fexe ba bañ koo jalgati loolee da ngay gis ne teewul ñu jalgati ko suñu borom nee ne defoon naa leen ca seede te it ay borom xam-xamu xeet mbokk ñooy seede yàlla ci kaw suuf ci ne lii la yàlla jalla wa ala bëgg ñu jaamoo ko ko gis ngeen allahuma lu dul ña nga xamee ni ni ñoom ñu yahudi ak nasaraan yi seen téere ñoom dañ koo jalgati falilahi alhamdu suñu borom jalla wa ala moom alquran wattuloowu ko kenn moom boppam la ko wattul moo ko wattul boppam moom te loolu it da ngay gis ne mooy la nga xam ne mooy la am alquran tey kenn mënu cee yokk dara kenn mënu cee wàññi dara bal jamono yi ci gannaaw demoon nañ ba jàpp ne waaw mbaa alquran du fay ci dënn yi yàlla indi beneen phénomène muy phénomène daara yi nga xam ne partout dans le monde la am léegi ñu gis ay téeméeri wala junni xale di mokkal à l'âge de ay sept ans ñu ngi noonu ay six ans yooyee di mokkal téere bi yàlla bi loolu kon yàlla moo ko wattu wa tax borom mu ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun ñoo ko wattu kenn mënu ci yokk dara bal dañuy wax xalifa mamoun bokkoon ci bani abbas yi amoon na benn juif boo xam ne dafa ñëwoon tuub dugg ci lislaam mu nekkoon nit kilifa gu impressionnant mamun woo ko ne ko waaw man dama bëggoon yow nga xamal ma lan nga def ba dugg ci lislaam mu ne ko man daal yàgg naa ci sikk sàkk waaye mën a xaaral baax na daa di dem recopier benn tawraat wàññi ci ay aaya dugal ci say wax dem ci kilifa yi yahud yi nekk ci seen synagogue yi won leen ko ni leen téere bi day maa ko bind dama bëggoon ngeen xoolal ma ko ndax conforme mën a am déet nee na ñama ko jox ñoom yépp ku ko liir ba ku ko liir ba pare ah macha allah lii de am na solo nee na man waa baax na dem jël benn injil dugal ci samay xalaat am lu ma ci wàññi dem jox ko ay yenn labbe ne leen lu ngeen xam ci téere bi ñoom it ñu liir liir liir naa li day baax na ah man waa baax na dem jël alquran am yenn ay yu ma ci din dugal ci say wax yëggu ma ci borom xam-xam yooyu commerçant bu ma dëkk dajal moom ko dëkk sànni ne ma lii baaxut ma ne ah ko kon lii moo jóge ci yàlla kon lii moo jóge ci yàlla loolu moo tax mu tuub dugg ci lislaam te tey jii mbokk imaamu masjidul haram bu ñëwoon fii dem ci village bi gën a reculer ci Sénégal booy jàng bu tëbee benn aaya rek ak gone mën na ko subhanallah li muy dégg-dégg arab bu jëloon waxi boppam dugal ko ci alxuraan ji ñu ne ko subhanallah lu tax mooy lii yàlla moo ko watte yàlla moo koy moo koy wattu borom boobu subhanahu wa taala nag ne kon ñoom dañ leen wattu la woon téere bi jalgati nañ ko et pourtant day la leen yàlla waxoon mooy fala taxshawu nas waxshawni e way bu leen ragal nit ñi na ngeen ma ragal man te mooy mbokk téereb yàlla bi ak bari ay borom xam-xam yuñ ci rey ak bari ay borom xam-xam yuñ ci duma bokk dañ ngeen xam ki nga xam ne imam ahmad ñaata lañ ko duma ñaata lañ ko tëj ci waxloo ko rek ne ko alquran du waxi yàlla rey nañ ci ñu bari avant moom gis ngeen imaamu malik rahimahullah ñaata yoon lañ ko tëj ñaata yoon lañ ko duma ba yàq loxoom loolu nag suñu borom mu ne ay yéen borom xam-xam yi ragal nit ñi bu mu tax mukk nag ngeen jalgati sab téere wax leen li ma leen waxloo bu ngeen ciy dee dee leen ci bu ñu leen ciy duma duma leen ci fala tax shaw naas gannaaw yi borom bi subhanahu wa taala mu ne ragal leen ma man teew leen bu du leen jënne samay një ay njëggu néew te mooy intérêt àdduna bu mu tax ngeen xooj diine ji comme niñ koy gisa tey ci rajo yeeg télévision yi ustaas yoo xam ne nii dañoo bëgg kenn du mer luñ leen lu neex nit ñi rek neex na leen gis ngeen di wax nit ñi xaqataay ak rey kenn du mer loolee ñu jënde ca la nga xam ne moom lañ cey jënde ca lañ leen di jox loolu tax borom xam-xam yi dañ naan ñetti borom xam-xam moo am am na lu ñuy tuddee ulama wu dawla mooy ña nga xam ni la neex état bi rek la ñuy lijjanti gis ngeen bëgguma tooñ waaye yéen ndaw ñu am xam internet bi xam ngeen tey am na réewum l'islam mu mag a mag a mag bu bokkul sax réew mi gën a mag ci l'islam am na ñaata nit ñoo nekk ca ko soyee tey tey borom xam-xam yoo xam ne ñàgg yàgg yàgg jëriñ doomu aadama yi kenn xamul ñaata lañ ci ca kaso bi tey loolee nag am na ñoo xam ne ñoom seen yoon niwul ci loolu état bi daal la ñuy dégg lu neex état bi neex na loolu la ñuy wax lu neexul état seen yoon niwu ci yal na yàlla yërëm oustaz Bamba Ndiaye mas naa dem benn conférence am muy nettali benn ci dëkk l'islam yi bëgguma tooñ waaye nee na benn mufti dafa ñëw ñu koy wax loo ci planning familial nee na bi mu ñëwee ba ci studio bi mu xaw a jaxasoo mu ne waa technicien bi waaye ñoom dañ ko bëgg a dagalalam dañ ko bëgg a xaraabal mu ne ko ah cheikh dañ ko bëgg a daganal de mu ne ah ñu ne waaw mu commencé waaw xam ngeen ne doom ju dëgër moo gën doom ju néew donc nga am ñaari doom encadré leen nag ba émission ba jeex gis nga bu ne woon da koo bëgg a araamal mu daal di indi ay aayaam xam ngeen li yàlla nar a bind ci bakkan nga dindi lu koy faat nanga loolu mooy ulama wu daw la nga xam ne seen ñoon nekku ci li li neex état daal la ñuy wax lii ëpp li am suñu réew nag mooy ulama ul umma ñoo xam ne ñoom li neex nit ñi moo leen neex ay oustaz yoo xam ne lu neex nit ñi moo leen neex kenn ci ñoom nekk ci benn conférence am ku ko laaj ne ko waaw oustaz moom xeesal loo ci xam mu ne waaye xam ngeen ne lënd ma gën leer waay ah waaye xëy mi ngi doon yaa ngi dégg xoolul xoolu ma loolu mbokk julit ah ah waaw subhanallah ngeen baal ma mu ne xam ngeen leer a gën lëndëm waay gis ngeen xam ngeen ne leer a gën lëndëm ñii di leeral jigéen ñi leeral ak xeesal waaye xam ngeen ne leer a gën lëndëm waay yaa ngi dégg te boo ko fekkoon biir néegam na ko maa ngi lay laaj ca yàlla tax ndax jigéen ñi li ñuy def dagan na danaan la déedéet am déet mi ngi noonu am na ci koo xam ne danaan wax waaw waaw ñun ñi nekk ci rajo yi day mi ngi noonu ba ma koy wax maag oustaz maa ko ñu wax ba ma ñaan ñoo ànd dégg nga de mu ku siiw mu ne ah ñun ñi nekk ci rajo yi xam nga il faut di ngeen ñuy yërëm rek da ngeen ñuy jéggal rek mbokk rajo ak jàkk ki la la différence yow li ngay wax ci rajo bi day dem adduna yépp loolu koy xanaa moo war a gën a ñu war ko sàmm ah yaa ngi dégg da ngay dee bàyyi ko fi génération di ko utiliser loolu moo tax ba mbokk jurit loolu mi ngi noonu am na ñi ca néew ñi ca néew yàlla na yàlla boole ñu ca boole ca képp koy wax ci yàlla tax mooy li ñuy tudd ulama ul milla nga xam ne ñoom la leen itteel mooy lii la yàlla wax ñu koy jottali nit ñi neex na état neex na mbooloo mi seen ñoon néewul ci loolu waaw seen ñoon nekkul ci loolu lii daal la yàlla wax loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee ngalawaay xam leen ne li yàlla wax jalla wa ala mooy sama téere bii ku ko wàcce ku ko ku ko attewul ab yéeféer nga su dee na gëmoo ko yéeféer mutlaqan nga su dee na gëm nga ko ba pare attewoo ko loolu la ñu tudde kufrun duna kufr am na ki Ibn Abbas doon wax mooy kéeféer goo xam ne nii du kéeféer du gulay génn ci lislaam waaye ci kabaayiri kabaayiri la bokk loolee ngalawaay ku nekk tribunal ku nekk assemblée yéen ñi nekk assemblée di voté looy réew mi ngalawaay xam leen loolu lii da leen di dimbali mooy xam leen loolu xam leen ne bépp loi booy voté masalan tey jii suñu borom nee na katam na alayhim fiha anna nafsa bi nafs yàlla nee na bakkan bu reyee nañ ko rey tey jii suñu borom yàlla waxit suñu borom yàlla dogaloon na masalan lu mel ne suñu réew loolu amoon na fi mooy peine de mort amoon na fi léegi ay nit ay doomi jullit jóg ne déedéet lii yàlla tëral lii jaaduwul peine de mort dañ ko fiy jëlee ndax gars yi loolu jaadu na waaye loolu jaaduwul su ko defee loolu njuumte gu rëy la mën na am nag ñaka def bàyyiwuñu xel ne lii alxuraan moo ko tëral waaye bépp jullit boo xam ne nii bàyyi nga xel ne yàlla mi dogal ne bis da nga mas a dee ñu suul la moo ne woon peine de mort nañ ko tëral doo dem mu ko di voté ne nañ abolir la peine de mort loolee kon benn misaal rek la ci su ko defee mbokk julit suñu borom yàlla moo tëral ay atteem ne bu leen ko jëndee ñëggu néew ku rey bakkan moo ko tey rey leen ko jàng nañ ca baqara walakum fil qisaasi xayaat ya ulil albaab lii sauvé seeni bakkan moo ñu tëral ne ku rey nañ ko rey gaa yi nekk li ñu ne benn buur ci buuri kajoor yi fi jaar nee nañ rey gi dafa bëri lool benn bis mu woo nag région bi yépp ne leen xam ngeen lu xew man bakkan bu rey nit mënuma koo atte léegi daal képp ko fi rey ci nit danaa ko booleeg moom suul ñu dem ci yàlla mu atte leen yàggul dara am benn waay benn waay bu rey moroomam mu ne gaa yi jàppale ñu jàpp ko mbooloom ñëpp teew mun a gas leen ñu gas ba mu xóot ñu indi néeg bi bala koog néeg bi takk ba mu dëgër suul ñu ne ba baa mu fi jóge kenn reyul kenn yaa ngi dégg mbokk loolu la borom bi wax nekkee la qisaas loo xam ne nii ayat la waaye moo ko lan mooy xew suñu réew lu ñu wax buñ ko waxee li jëf ju loolu la wax ay yow agresseur bi demal kër jàmbur dajje ko rendil ñëpp ñëpp rendi leen kenn du la rey gaa ji lii la ñu wax de buñ ko waxee loolu la ñuy def c'est la réalité demal kër jàmbur dajjal rendil tout le monde yaa ngi dégg xam nga lu lay xaar ñu jàpp la juge la ñen la tëj nañ la perpétuer yóbbu nañ la camp pénal mi ngi noonu ngay añaka réer réer ko ndékki mbokk lii mbir la moo xam moo tax suñu borom ni ñii activéwul li yàlla wàcce ñoo tooñ ndax agresseur bi nga xam ne mooy def crime boobu su jàppee ni le pire le pire li ma ciy xaar mooy dañ may tëj ci ak kër rek di ma jox may añaka réer ko ndékki mais kooku ndax dana am lu ko delloo gannaaw amma bu den wóor na ko ne suñ ma jàppee dañ may rey mais loolu mën na ko delloo gannaaw loolu ñu bàyyi ci xel bu baax nettali naa leen fii benn mbir boo xam ne yàlla xam ne bu ma koy déglu ci Sud FM maa ngi jóge Dakar jëm Kaolack benn ancien détenu ñu koy netti ñu koy laaj dafa reyoon benn benn benn médecin la reyoon ba mu koy rey il avait 23 ans nee na bañ ma ju- bañ ma bañ ma jàppee di ma jugé ba dernier jugement bi nee na ma dajeeg juge bi juge bi ma ne ko ah monsieur ba ba duñ ma rey ma ne ko non duñ la rey booba peine de mort jógegu fi non duñ la rey mais nee na bi ma demee jugement ñu juge ma ne waaw diw tëj nañ ko à perpétuité mooy dañ koy tëj ba faw ndax dafa fekk médecin bi ci clinique am mu rey ko dañ ko tëj ba faw nee na bi ma dellu saatee nee na keroog dama def entraînement gars yi naan ah xam naa peine bi moo moo moo fort ci moom mu ne fekk ñoom xamuñu lu xew man kam mucc naa ci dee rek alhamdulilah yaa ngi dégg dégg nga nee na vingt ans la tëdd bi mu koy nettali avait quarante trois ans vingt ans la tëdd gars yi xool na bonne cu- conduite génn na ko mu continue vie am am déet laajal yéen ndaw ñu dem Amérique am na ci état yoo xam ne nii ay jeunes yi bu ñu reyee peine maximale bi mooy vingt ans koo ci waxal day génne pistolet am ne la dama lay rey léegi dem tëddi continuer sama life yow nga dee yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokk julit nañu xam ne li yàlla àtte mooy dëgg te li la koy won mooy demal tey am na ay yéeféer yu koy attewoo ba tey demal Amérique am na état yoo xam ne ku fa rey ñu rey la demal Chine ku fa rey ñu rey la kon li yàlla xumuy dëgg gis ngeen loolee xawma kañ la ñuy amaat ay Ibrahim ak i Fatima ak Mariam ñu dajewaat assemblée nationale dellu si waat ñu la peine de mort ngir rey gi ñuy dégg un peu partout wàññeeku borom boobu nag subhanahu wa taala ne bakkan bu rey nañ ko rey képp koo xamee ni nii dafa fukk bëtub jàmbur fukk leen bëtam ku dagg ku dagg batu bakkanu jàmbur dagg leen bakkanam koo xam ne dafa damm ba ñu jàmbur damm leen bañam loolu lu muy doon day doon nakaal bëtub masamba bii ma nar a fukk suñ ma jàppee dañuy fukk sa bët ñàkk sa bët jarulu ma loolu bakkanam bii ñàkk sa bakkan jarulu ma loolu loolu borom lay subhanahu wa taala loolu la wax amaa nag yàlla ci yërmandeem mu ne képp koo xam ne dañ koo gaañ mu bale ci yàlla tax yàlla dana ko baal ay bakkaaram gis ngeen te mooy yàlla tëral loi bi ne kii ku ku ñu dagg bakkanam nañ dagg bakkanam dañ koo jam paaka natt leen si paaka bi ngeen jam ko waaye képp koo xam ne gis nga kala tooñ nga xam ne kii kat njuumte rek moo ko dal waaye xëy na lii du jukkoom nga baal ko ci yàlla tax kemuk bakkaar kemuk kemuk musiba bi mu la teg yàlla dana la baal baale gu toll noonee beneen bi mooy ki nga xam ne dafa dee ku kooku dee ki rey nit am na ñaari àq ki mu rey rey na ko kooku moom alaxira la ñuy régler seen diggante mais famille bi mu reyal ñi mu rey seen baay ñi mu rey seen frère ñi mu rey seen doom état da leen di woo ñi leen kii de moo rey seen doom wala moo rey seen baay moo ko tey léegi nag am ngeen ñetti choix benn bu la neexee ñu rey ko bu la neexee ñu ñu laaj ko diye bu la neexee ngeen baal ko loolee mbokk da ngay gis ne lislaam bu doon am na ci xale boo xam ne dafa amoon cinq ans sax waa ji dañ koy tëj ba majeur ndax ñi am àq ci loolu lépp ñoo war a dëppoo ne nañ ko rey ñu doog koo rey loolu lépp ngir bañ ñu rey ko soo demee Arabie saoudite ñu bari ñu ngi leen tëj ci kaso bi di xaar famille ñooy reyal majeur suñ demee ba majeur ñu dajale leen procureur bi dana leen ñaan juge bi dana leen ñaan lu nekk ñu def pour ñu bañ koo rey amma buñ dëppoo ne nañ ko rey su boobaa dañ koy rey kenn mënu ci dara buur mënu ci dara kenn mënu ci dara grâce présidence si nag kenn mënu ci dara bu dee attey l'islam lay wax attey l'islam lay wax su ko defee kon mbokk loolu la suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax nag ne képp koo xam ne yow attewoo nit ñi li yàlla wàcce yow yaay tooñkat yi lu tax mooy ñee naroon a tooñ ci loi l'islam yi warul na jaj delloo gannaaw yow nga génne fi loi l'islam yow yaay kon ki nga xam ne yaay ko tooñ yal na yàlla may ñu afiya
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون barakallahu fikum suñu borom mu ni wa qafayna ala asarihim nii lañu taftalee ca seen jeexital ya bi isa bnu bi isa bni maryam ci isa doomi maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min attawra mu nekk di dëggal la ko jiitu woon ci tawraat wa aataynaahu al injil ñu jox ko téere bu ñuy tuddi injil fihi hudan wa nuur moom it nekkoon na ci njub ak leer wa musaddiqan lima bayna yadayhi min attawra mu nekk di dëggal la ko jiitu woon ci tawra wa hudan wa mawizatan lil muttaqin mu nekk njub nekk aju xuppaate mawiza mooy liy ñaax nit ki ba mu def ndigal yi di ñaax nit ki ba mu bàyyi tere yi lil muttaqin ñeel ña ragal yàlla وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه e way nay atte ñoñu injil muy chrétien ya ca la nga xam ne yàlla wàcce na ko ca wa man lam yaxkum bima anzala allah ku atte woowul la yàlla wàcce day fa ulaika humul fasiqun ñooñu day ñooy ña génnuk topp mi nga noonu mbokk gis nañu li nga xam ne mooy tawraat depuis yàlla wàcce ko ci yonent yàlla muusa mboolem yonent yi ñëw gannaawam moo nekkoon seen référence ci wàllu loi ba gannaaw lu jege ay junni at la yàlla wàcce dernier yonent bani israil muy yonent yàlla isa moom la yàlla wàcce mu topp yonent yi ay mooy nekkoon le dernier ca bani israil moo nekk doon dëggal la ko jiitu ci tawraat ñu jox ko injil donte ne ne injil ba mu ñëwee dafa nekk rek di rectifier yenn erreur yu gaa yi dugaloon ca tawraat amit yenn aaya yum ca man suuxal remplacer ko ak yeneen moo tax boo demoon ñoom ñu koy tuddee l'ancien testament ak le nouveau testament injil boobu suñu borom mu ne def naa ci njub ak leer mu dëggal tawraat doon luy xupp ñeel ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla waaye injil boobu xam ngeen ni ñi ngi ko commencé bind presque quatre siècles après Isa loolu moo tax ba da ngay gis injil selon Jacques Paul Luc Jean ila axiri te loolu église catholique ñoo ci retenir ces quatre là waaye boo demoon injil yi kenn xamul ñaata téeméer injil la woon ala kulli xaal yow julit li ngay gëm mooy yàlla wàcce na ci yonent yàlla Isa ab téere bu ñuy tuddee injil mu jóge ci yàlla muy njub ñeel ñi bëgg a jaamu yàlla di xuppaate ngir ñi ragal yàlla ba ñu def ay ndigalam bàyyi ay tereem suñu borom it waxoon na leen yéen waa injil atte woo leen li injil wax mi ngi noonu waaye ñooñu injil bañ demee ba seen diina ñu sànni ko fële tëral seen luwaay bopp bañ demee ba coloniser àdduna bi yet partout fexe nañ ba lépp lu fay nekk aw tëralal génne nañ ko fa bàyyi fa seen luwaa bopp suñu borom mu ne waxoon naa waa injil na leen képp koo xam ne atti woowul li yàlla wàcce ñooñu day ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi génn topp loolu kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax donte ne ni li nga xam ne nii moom mooy ñàkk atte woo li yàlla wàcce wax nañ leen ko sànq firiwul rek ci ne ah juge bee nekk ca palais de justice di atte ay code pénal waaye xatta yow mi nga xam ne sa bàyyi dafa dee woon tey ñu ne la kat yow mi nga xam ne yaay góor temps nga war a am yow soxna temps nga war a am loolee nga daal di koy jalgati ne d'accord ci yow ci faasiq yi nga bokk mooy nanguloo borom bi jàll waara la loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax lépp loo xam ne loob yàlla la yow jullit nga xam ko tëraloo ko yaa ngi bokk minal faasiqiin kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
jazakumullahu khayra suñu borom mu ne wa anzalna ilayka alkitab ñun day waay wàcce nañ ci yow téere bi bil haqq ci dëgg musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab muy dëggal la ko jiitu woon ca téere ba wa muhayminan alayhi ay shahidan wa hafizan alayhi mu nekk di loo xam ni moo koy seedi di ko sàmm fahkum baynahum bima anzala allah attel seen diggante ci li yàlla wàcce wala tattabi ahwaahum bul topp mukk seeni bànneex amma jaaka min alxaq ci li nga xam ne dikkal na la ci dëgg li kullin jaalna minkum shiratan wa minhaja képp ci yéen ay bépp xeet def nañ ñeel ko sharia bu muy attee ak yoon wu muy jaar pour jaamu yàlla walaw shaa allahu la jaalakum ummatan wahida su neexoon yàlla yéen ñëpp mu def leen benn xeet kese benn rek walakin li yabluwakum fi ma ataakum waaye ngir mu nattu leen ci li nga xam ne dikk na leen ko jox leen ko fastabiqul xayraat jëkkante leen jëm ci aw yiw inna allah il ila allahi marji'ukum ci yàlla day mooy seen delluwaay yéen ñëpp ilallahi marji'ukum jami'a ci yàlla mooy seen delluwaay mboole seen fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi taxtalifun mu xabaara leen ci lépp lu ngeen nekkoon di ca juyoo wa an ixkum baynahum bima anzala allah te it attel seen diggante ci li yàlla wàcce wala tattabi ahwaahum bul topp mukk seeni bànneex waxzaruhum te waay moytu leen an yaftinuuka am baadi ma anzala allahu ilayk ci ñu lay fitnaal ci lenn li nga xam ne yàlla da ko wàcc ci yow fa in tawallaw suñu dëddoo nag faalam annama yuridu allahu an yusibahum bi baadi zunubihim xamal ne yàlla day daa bëgg ngir laalale leen teg ci ñoom ci lenn ci seeni bakkaar ya wa inna kasiran min annaasi la fasiqun doonte ne la ëpp ci nit ñi day dañoo génnuk topp afa xukmal jahiliyati yabxuun ama ndax attey waa jahiliya la nit ñi di sakku wa man ahsanu min allahi xukma ana ku gën a rafet yàlla atte li qawmi yuqinuun ñeel xeet boo xam ne dañoo am gëm goo xam ne gëm gu wóor la mi ngi noonu mbokk kon suñu borom ba mu wàccee téere ya jiitu mu ne nag ab yonentam ma wàcce ci yow téere téere bi mooy alquran muy dëggal la ka jiitu woon waaye di ka saytu ay alquran ñëw na ne tawrat ci yàlla la jóge injil ci yàlla la jóge waaye ndax daa saxal lépp lu nekk ci téere ba déedéet am na yum ca weddi mi ngi noonu am na yum ca saxal loolu moo tax ba mbokk julit bépp téere boo xam ni dañuy nettali la ca nekk ci tawraat ak injil jullit lan la cay gëm mooy la nga xam ni alxuraan da ko feddali saxal ko ndax alxuraan ko feddali saxal ko lu ca alxuraan weddi dañ koy weddi lu ca alxuraan noppi dañ cay maandu lépp loo dégg ñu ne dafa jóge ci tawraat ak injil ci alxuraan weddiwu ko yow jullit doo ko gëm doo ko weddi mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala nekkoon yonent bi atteel seen diggante ci li yàlla wàcce yonent bi alayhi salaam waxul yàlla waxu ko ne dajaleel nit ñi ngeen xool la gën a rafet ci atte ngeen atte woo ko comme ni mu awee ci amee ci réew réew réew yi ñu ci tey mooy ay nit ñooy daje ñu tudda leen ay député ñooy daje ñu tudda leen pouvoir législatif ñoom ñoo am kattanu tëral ay loi waaye suñu borom dana ko déedéet atteel ci li yàlla wàcc li yàlla ci mel quran ndax yàlla benn moom rek moo xam ay jaamam te moom moom moom ay jaamam gis ngeen kon atteel li yàlla wàcce te booy atte bul topp seen bànneex ci li li dikkal ci dëgg ndax kii atte mën na atte woo sax li yàlla wàcce xam ne lii la yàlla wàcce waaye bi muy atte mu topp bànneexam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñetti attekat moo am ki nga xam ne xamul luy dëgg xamul lu ñuy attee mu ne attekat boobu day sawara la jëm ki nga xam ne xam ne atteex ba pare atte bànneexam sawara la jëm kenn rek moo ci mucc ki xam la yàlla bëgg ñu attewoo ko ba pare mu attewoo ci lii moo tax ba bokk na danger bu rëy rëy rëy doomu aadama ñu teg ko attekat muy nekk di atte ci réewum julit borom boobu nag subhanahu wa taala ne xam leen ne mboolem maa si fi jaar ku nekk utal naa ko sharia boppam ak yoonu boppam na am bokk julit diine yi ñoo bokk cosaan li ñu bokk mooy tawxid ñoo bokk gëm li ñu gëm mooy lépp lu aju ci iman ñoo ko bokk mi ngi noonu amma bu dee ci pratique suñu borom mu ne ku nekk utal naa ko façon pratique looloo tax ñun nit ñuy julli chrétiens yi du ñu jullee noonu donte ne ñoom yàlla waxoon na leen ñuy julli nit ñuy woore chrétiens yi daaw ñu war noonu ak juif yi yonente bi alayhi salaam mooy ñun suñuy différence buñ nelewee ba yeewu yet am nañ droit di lekk ba xëdd te ñoom loolu amul seen diine naka noonu noonu la amee ci loi yu bëri bal ci benn diine sax diine l'islam bi da ngay gis ne au début suñu borom yàlla am na lu bëri da ko man suuxal remplacer ko par leneen kon diine yi ñoo bokk lu ñu gëm waaye bu dee pratique moom bokkuñu pratique ku nekk utal naa ko yoon ba nga xam ne ca la war a jëfandikoo looloo tax même doomu aadama yi sax ci seen biir am nañ différence suñu borom yàlla bi mu ne aj màkka farata la it daf ne ku ko man ki ko mënul du farata taxaw leen julli pour ku ko man la ku ko mënul du farata ci yow joxe leen azaka pour ku am la ku amul du farata ci yow loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi jàll wa ala nag ne su ma neexoon yéen ñëpp ma def leen benn diine kese ummatan wahida depuis aadama lay jox rek ay loi ne ko sa xeete ngi noonu mais suñu borom yàlla ci yërmandeem jamono bu nekk day xool lan moo gën a arrangé nit ñi mu teg leen loi yu toll noonu suñ demee ba jamono soppeeku mu indi yeneen loi yu dëppook seen jamono ba baa nag di former nit ñi di former nit ñi ba xam ne adduna ngi waaj a jeex te la indi nag ab yonent boo xam ne moom moo indi loi yu ëmbale yépp te it yonent boobu moo tombeeg li ñuy tudde mondialisation nga xam ne tey jii mbokk julit lii xew Canada wala lii xew Russie man nga koo jëkk a xam lii xew fii nga dëkk ci parcelle gi loolee kon moo tax yàlla subhanahu wa taala boole ñépp la nga xam ne benn doxalin la suñu borom nag daa di ne ay yéen nit ñi jëkkante leen jëm ci aw yiw na am mbokk julit li ëpp ci nit ñi lu ñu jëkkante tey alhaakumu takaasur dañuy jëkkante ci bari li ku nekk di bëgg sa kër benn kër du ko dàq sa waruwaay waruwaay du ko dàq la nga xam ne mooy seen doom kenn du leen gën a réussir kaza wa kaza waaye suñ borom dana woon fastabiqul xayra jëkkante leen jëm ci yiw mbokk àdduna léegi mu jeex lan ngay dese muy yiw yeneen tibaale salaam mu ne dama adama ngi ñetti ngi ko topp la nga xam ne mooy ay jegeñaaleem da doon ay mbokk lañu ay xarit lañu ay dëkkandoo la nga xam ne mooy sa alal ji nga faggu la nga xam ne mooy say jëf nee na bis boo deeyee jegeñaale yooyu dañ la gunge ba bàmmeel waaye yow rek yaay dugg de yow rek yaay dugg yaag sa jëf su ko defee ñoom ñu wëlbatiku dellu gannaaw alal ja nga fa bàyyoon ñu séddoo ko gis ngeen alal ja nga fa bàyyoon ñu séddoo ko looloo tax ki xel lu dëgg mooy jëkkante leen jëm ci aw yiw looloo tax lenn ci sahaaba yi ñëw ci yenent bi yàlla bi ne ko ñun borom alal yi dañ ñoo raw luñ ñu rawe ndax seen kër yi moo gën a rafet suñuy kër ndax seen waruwaay yi gën a rafet seen waruwaay la ñu ne ñoom ñoo bokk ak ñoom jaamu yàlla yépp duñu leen jiitu ci jàkka ji duñu leen jiitu ci jihaad te ñoom ñi ngi am alal di ci def lu baax ñun amuñu alal yonent bi ne kaay leen su ngeen jullee te ba pare wax leen subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ngeen tëje ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu almulku lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir su boobaa yéen da ngeen leen raw da ngeen leen raw ñu dem ba yàgg borom alal yi gis ñoom sëñ taam ku jullee pare di def ni ñu enquête waa li ngeen defi lu mu doon gaa yi wax leen ko ñoom it buñ jullee di def li gaa yi def gaa yi delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko sa kër ba ñu joxoon borom alal yi yéeg nañ ko mu ne leen ah loolu nag ngeen lu yàlla la moo ko jox ku ko neex ca mbokk kon ala kulli xaal mi ngi noonu fexe leen jëkkante ci yiw yow ndaw fexeel ba góorgóorlu ñi ngay àndal nga gis leen dañoo mokkal alquran e waay fexeel mokkal alquran nee nañ dañuy yeewu guddi di naafila e wal di yeewu guddi di naafila gis nga leen ñuy koor e waay del woor te loolu nga bañ ci dem benn kii benn mag bu mag nettali na ma nee na dafa dem màkk ku jigéen la dafa dem màkk nee na fi mu toog mi ngi gis ay jigéen ay indonésienne ak i pakistan te ñi ngi yor seeni kaamil di jàng ci wetu kaaba gi nee na man kaamil bi xàmmiwu ma alif alif ak nangam comme la fa sunu waaji doon wax alxuraan ma neuf waaw laa ca xam ndax daa nuroog neuf nee na man xawma ci dara nee na ma ne ma dox ba ci wetu kaaba gi daal dina yàlla maa ngi lay ñaan ay yàlla su ma ne bee Sénégal yàlla nag ma boole sa jaam yi mën a jàngal alxuraan waaye fi lillahi alhamd ba mu demee yàlla def na am mbokk yu ñu ko booleel ba tey day jàngal xuraan ni ngeen di jàngal xuraan mbokk lii mooy ñeetaate bu baax lii mooy ñeetaate bu baax yow doomu jurit la gis nga ñi ngi jël alxuraan di ko jàng man xawma ci dara nan laay def ba man ko loolu mooy la ñuy war a roy ama oto yi kër yi ñun ñëpp fi lañ koy bàyyi dem fastabiqul xayraat jëkkante leen ca la nga xam ne mooy aw yiw te yàlla mooy seen delluwaay yéen ñëpp mu xabaare leen la ngeen fa doon wuute te bu boobaa mbokk taax du jëriñ oto du jëriñ lay jëriñ mooy ay tuyaaba borom boobu nag dellu si ci àtte bi ba tey ndax mbokk àtte bi ñor na ko lool ñaari page yëpp ci àtte bi lay wax. mi ngi noonu ay waay àtteel seen diggante te la nga xam ne yàlla wàcce na ko te bul topp la nga xam ne mooy seeni bànneex moytu leen bañ bañ laa fitnaal ci lenn li yàlla wàcce ci yow te it mbokk loolu da ngay gis ne suñu borom. téere ne waxul ci rek ne ñiy bàyyi atteb yàlla à cent pour cent mais nee na ñi ko xaaj rek am luñ ca nangu ñooñu sax yow yenent bi bul ànd ak ñoom ci loolu yàlla ay mbirum da ngay jël lépp wala nga bàyyi lépp suñ borom yàlla buur bu toll ne moom du la sant nga naan ko waaw lii moom danaa ko def waaye lii duma ko def laa lépp ngay def wala nga bàyyi lépp gis ngeen buñ la bëgg buñ la fitnaal ci lenn sax li yàlla wàcc ci yow loolu mi ngi noonu su dee ne nag dëddu nañu wane gannaaw xamal ne yàlla da leen a bëgg a nattoo ci seen i bakkaar ci li ëpp ci nit ñi dañoo doon ñu réer te mbokk ñàkk a attewoo téer bi yàlla bi comme ni ngeen ko waxee multiplier ne agression yi kenn waxul ne bu ñu attee téere bi yàlla bi kenn di fray kenn waaye liñ lay wax bu doon dañuy rey cent par mois wallaay quatre-vingt-dix dañ mucc buñ doon sàcc cent quatre-vingt-dix dañ mucc amma nag ñàkk koo def loolu day jur fitna looloo tax ba tey jii masalan boo demoon laaj waa àll bi ñematuñoo bay tool yu baax mboolem ñu nekk ci wetu tali yi ñematuñoo yar ak jur nit ñi dañuy ñëw rek di ramas di yób- di yóbbu ndax sàcc yi amuñu leen luñ ciy ragal loolu kon fitna lay jur ñàkk a indi loi yoo xam ne nii yu dëgër la yu dellu nit ñi gannaaw fitna lay jur borom boobu nag subhanahu wa taala laaj nag laaj bu mujj gannaaw ba mu ñu jàjjee jàjje bu nekk mu ne waaw ndax loi yi nga xam ne dañ koo jëlee ci jahiliya te lan mooy jahiliya mooy lépp lu safaanoog la yàlla tëral jahiliya la ndax nit ñi dañuy jël looy jahiliya nekkat moom la ñuy attee sànni atte yàlla fële mu ne waaw ana ku gën a rafet yàlla atte ñeel xeet boo xam ne seen gëm nga dafa doon gëm gu wóor ca lekk la chaq ne mbokk julit amul benn julit boo xam ne pas-pasam sell na lu dul day xam ne li yaat yàlla atte rek mooy dëgg képp koo xam ne yaa ngi sikk sakk ci atte yàlla rek mooy day wañe ne yow gëmuloo moo tax suñu borom ni kasiran min an-nas la fasiqun dañoo gënnuk tapp te itamit rawatina li tubaab bi gën a bañ muy lu mooy loi pénale yi ku njaaloo nañ ko rey waaye yow fussiini woo njaaloo looy ragal ci loolu ki sàcc nañ dagg loo xam ci yow fussiini woo sàcc ki rey ñin nañ ko rey ci yow fussiini woo rey kenn loolee mbokk da ngay gis ne kon amul lenn loo xam ne looy ragal ci loolu kon mbokk daal mi ngi noonu nañ leen te waxe woo nit daa iman li tax nit yi insister que insister mbokk atte yàlla ñàkk koo jëfee loolee day bakkaar bu rëy a rëy la gannaaw ba nga nangoo ne lii la yàlla ko wax te lii lañu war a def amma nag yegg ci ne loo yàlla yii valableul ñu koy atte woo suñ jamonoy tey ji ñun nii ñu tërale moo gën a jub loolee da lay génne ci lislaam gàllawaay ñu bàyyi xel loolu ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu boole ci jaamam yi ko jébbalul nangul ko lépp loo xam ne digal nañu ko te it daw lépp loo xam ne dañu koo tere yàlla nañu jagleel afiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ñi nga xam ne dañoo nekk ci am réew cay yow ñuy attewoo loi laïque la ca jiitu mooy suñu borom bokk na lum ñu teg koo xam ne da nga gis lu bon su doon mën nga koo dindi lu bon loolee da nga koy jéem a dindi am na ñoo xam ne soo demoon ci dëkk arab yi dañuy créer des partis politiques ngir dugg à l'assemblée fexe ba changer loi yooyu waaye gis nañ fi ñu ko def yépp amul njëriñ fi ñu ko def yépp amul njëriñ ba nga xamee ni nii borom xam-xam yi nga xam ne nii yàgg nañ ci wàllu expérience rawatina ko mën a Cheikh Nasrul Albani moom danaan ndaw ñi bu leen dugg ci loolu bari na ndaw ñu dugg ci loolu jàpp ne dañuy soppi ñoom lañ far soppi ñoom ñoom seen bopp lañ far soppi loolu muy benn amma nag am na ci ñenn ñoo xam ne des extrémistes jàpp ne dañoo war a xeex daaneel état nangam mbokk loolu ñàkk a xam la musiba la mooy musiba bi gën a rëy bu ñu yàlla nattoo tey ñoo xam ne dañoo jàpp ne dañoo war a daaneel état yi pour teg la nga xam ne mooy état islamique loolee bu ñu xoolee bañ commencé yooyu ba tey waatal na bu amee un million de morts neuf cent mille yépp ay jurit lañu te mbokk jàpp naa ne yàlla bi muy tëral loi pour sauver bakkan yi la yàlla bi muy tëral loi pour dimbali jurit ñi la mais indil pour rey nit ñi léegi lan moo ci des lu ci des mbokk mooy laaye biir laaye biir wax ak képp koo xam ne xam nga ne ab député nga nga wax ak moom na ko day bu ngeen demee bay tëralee ci ay loi dee leen bàyyi xel li yàlla subhanahu wa taala wax mu dellu si nag ci yow mi nga xam ne da ngaa am problème problème boobu ak nit masalan ki yoroon la xaalis léegi nooy def ba mu fay la boo ko poñee dóor ko police jàpp la ndax am nga droit dem ci loi porter ko plainte mu fay la ah kay su boobaa yow la la la yóbbu ci loi ba muy jël sa àq waaye doo dem ci loi mukk di utiliser loi bu bon ngir jalgati ki nga xam ne daa loru àqam bi mënu koo jël lu dul da ko yóbbu ci loi loi boobee même bu attiwewul la yàlla wàtte cam xam ne su ma fa demee danaa jot sama aq lu mel noonu ne da ngay gis ne islam dana ànd ak moom ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam